le bulletin de Bassirou Diomaye Faye qui est Le bulletin de Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il place euh, à la première, la première place. Il va, il va s'isoler, comme on dit. Oh, on... Oh, non, non, non, non, non, non, non, Ne le tirez pas. Mais il peut pas. le frère veut beaucoup quand même. Quel est bon, le vote, il est secret quand même, même si on devine. Comment allez-vous Les gars, ils veulent, ils veulent filmer juste dans l'isoloir. non c'est bon non le président le Sonko le qui place euh, son bulletin l'enveloppe il place la c'est bon à l'intérieur le président Ousmane Sonko a voté le président Ousmane Sonko a voté, il reste à tromper en... Il signe, il signe à voter. Il reste l'encre, l'encre, l'encre, l'encre, l'encre. mi ngi noonu le président Ousmane euh, Sonko le président Ousmane Sonko qui remercie le gouvernement il a voté il a la presse point de presse bi ci biti Oui, Abdoulaye Bob, euh, voilà donc Ousmane euh, Sonko. njëkk a wax ni tey wote nañu mën na bett Sénégalais yu bari parce que ay weeri weer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 mi ngi noonu président Ousmane Sonko euh, voté na euh, ba pare jamono yi nii euh, mi ngi war a dellu fi nga xamante ni. moom moo di euh, këram message bi leer na moo di alerte na ci tentative de fraude yi nga xamante ne yenn yi ñu ngi koy def avec euh, l' importation de votants euh, venant ci frontière yi gis nañ Ziguinchor démb ay Bissau bëgg a dugg xale yi ñu leen si doole fi dugg doo leen voté ba pare dàq leen eh, gis nañ ci itam ay yeneen image yu jógee Fuuta ñaar ñii ay Mauritanie la ñu jógee ak affaire yooyu noonu jamono yii nag eh, mën nañ wax ni eh, président Ousmane Sonko dànkaafu na ñi yor organisation élection yi ci situation boobu donc loolu moo gën a tax nag moom mu wax loolu